ci ak fàttali ci fan yu mujj sëriñ bi ci fanam yu mujj yooyu lenn ci ay kàddu yoo xamante ne ni ay ndénkaan la doon ko jëme ci nit ñi ci kaw ba mujj ci ñaar fukki fanam yooyu mu am ci muharram gaaw ba ci mujj di fukki fan yi ak juróom benn ca la julli takkusaan la woolu mbooloo mi wootu ci ak ñoom jóge ci jàkka ja rek toog wax sëñ Mat Lamin Jóob mu jàng alxuraan jël benn bàqara gaaw nag di fukki fan ak juróom ciw tam xarit la ne Malick Ndiaye yéeneel na ñëpp julli si fii takkusaan bi Malick Ndiaye ñëwee sëñ bu mag bi génn ak jëmmam ji sëñ Masamba taxaw mu ne ko ma Masamba mu ne ko Mbàkke mu ne ko ndax mbooloo mi ñëpp ñëw na mu ne ko Mbàkke ñëpp ci mbooloo mi de ñëw nañ mu ne ko encasa loolu day waxin bi ne leen yéen dama leen di xamal ne yàgga di wuma fi yàgga di wuma fi mooy yàgg naa fi yàgga di wuma fi ndax jëmmam jooju feeñ na fi juróom ñaar fukki at ak juróom yàgga di wuma fi loolu beneen waxtaane ci ne ne sara lakum mina diini ma wasa lakum la fi waroon a am lakum xam nga ne laam gi fanweer la keef gi ñaar fukk la muy juróom fukk moom gi ñeen fukk muy juróom ñeen fukki at lakum la fi waroon a am waaye nag la tax nag mu def sara lawum mu andi ko ci lëhum ne rasulullah moo gane si fii ci njëreem bayti rasul nga ne rasulullah am fi fukki fan ak juróom fii fukki fan ak juróom ci njëreem gii ne ba muy dem nag mu ne ma dama bëggoon daal fukki fan ak juróom yi ma am fii nga nga nga nga nga nga wàññi li nga fi waroon am fekk si ma te ne lu ma rasulullah wax du ma ko weddi moo tax ma ma wàññi ko mën naa laa wax juróomi at yi dana yokkal naa ko diw juróomi at yi ma yokkal ko diw juróomi at yi ma yokkal ko diw waaye sara lëkkum la waroon a dund juróom ñeent fukki at muy fukki fan ak juróom di gaawu mu dal di dem ca jàkkaam ju tedd jee loola ci jataay yi mujj a def la bokk bokk itam ci ay junjëm bis boo xamee sëñ Ahmad Tasrif moom sëñ jéeri waa daan nga wax ni ko wool ma Masamba mu dem wooyi sëriñ Masamba mu ñëw sëriñ bi wax ko ni ko toogal fii ko am lu may jox bu ñëwee jox la ko ndax ni ko nañ ma wool Moussa Diama Gueye sëñ Ahmad dem wooyi ko mu ñëw sëñ bi ni ko wutal gaal nga teg ko ci penc ma ko ma sàmba doyut te gaal gi doy la la nga yor nga def ko ca gaal ga am na fa ma bàqee leel arsaqi fali xayri na wax ko itam ni ko wool ma aafe mu dem wooyi sëñ aafe mu ñëw wax ko ne ko seen jàkkaangoog loolu itam di bokk ci ay tegtal rek yoo xam ne xëy na mag ci xamuñu woon lu mu ci jublu waaye ginnaaw bu xew-xew bi xamee lañ xam ne daf doon battale li mu war a battale rek waaye itam sëñ ma jëmb si la mu ñëw mu ne ko seenub kaamil a ngoog daari kaamil ji ko da daan wax ni da ngeen a bëggub tool ca mbudaay dafa ci bàyyil toolu àllarba seenub tool a ngoog yooyu yëpp doon ay tàggatoo yoo xamante ni nii ci diggante benn pan muharram boobu ba ci fukki fan juróom benn yooyu yi li la ko doon jëflante ak ñoom fekk wax na Serigne Modou Moustapha wax naa ko ci gannaaw ne ko tam xarit gii nu nekk ren tamxarit yi ci sa kanam yëpp fukki ñaar fukki guddi fukki guddi ak juróom-ñeent ba sedd ñaar fukki guddi fukki guddi ak juróom-ñeent bu bu bu ko fanaan fu dul ci pàkku njëriñ bi sëñ Modou Moustapha. boo ma nga ñaaxeen defaru na bañ julli gee ba noppi ba Cheikh Fall Xattaab ba jàng ba noppi mu fattu ci bi fattoo ba noppi laaj ne leen waaw weeru weeru ba weeru tamxarit bi fukki fan ak juróom-ñeent mu ne ah ku tedd ki de def ma noonu li des ci sa kanam tamxarit fukki guddi ak juróom-ñeent bu ko fa naan fu dul njëriñ bon kat bu ngeen yeboo defaru lu guddi guddi dañuy dem njëriñ dégg nga Moussa Kane su moo téléphone Moustapha ca ñaaxeen mu ñëw yóbbu ñëw yóbbu ko Touba ci kun fa yokku ci guddi fekk sëriñ bi bi ma la waxee bi mu waxee gaawu bii bu ñu mësaan nodd bu ñu mësaan nodd sëriñ bi loo daw daw doo ko jot day mel ne dañ moom moo gën a gaaw ngelaw buñ ne allah akbar ama dégg nga ndax maa ngi waxtaan woowu day julli muy taw muy julli muy taw mu sujjóot sujjóotam yu yàgg yi nekk sëlmal xam na li ci xooli nit ñi yaral xafa yaa béy nel xal bi saa iratan kama yu saa yi duma taxtal ak inaaj mu ne leen julli ci taw de metti na lool waaye ne ci bàmmeel muy tàkk ko gën a metti dégg nga dibéer ja mu jë jullee ci jàkka ji muy fukki fan ak juróom benn ba mu sëlmalee suba buñ mësaa sëlmal bu mësaa sëlmal dafay toog di tomb ñi ferul ijji ne mën soxna muy tomb di wax ñoom di far dégg nga waaye ba mu sëlmalee ba tey suuf saa fa suuf nga fa bi ko gaynde Fatma di tabax dane suuf si nañ ko fi baax mu di barkeelukaay ba léegi gaar lañ fa def dégg nga bu mësaa génn foofu lay fereng lañ bu ko ci keroog dimanche la génn muy fukki fan ak juróom benn mu julli suba ba noppi moom la sëriñ bu mag du mujj julli ci jàkkaam ji sëñ bi dimanche ji ba mu xëyee julli si ca jàkka ja demut julli ji wut waxtu sëñ Matar ba yor yor ba dëgëree ñëw na kalaay yoone ca kees yi waaye déggut dara lu yëngu mu dem ca ngoon itam sëñ Matar dellusiwaat na fa waaye kalaay yoone kees yi déggut dara lu yëngu mu delluwaat ca altine ji ca suba itam ci yoor yoor mu xaw a taw taw masayib bu xaw a dëgër sëñ Ibnu Amar jóge na ca daara ja jëm ca teen ba dem rooti laata muy wàññi ko sëriñ bi génn na ci néeg bi mu newoon joggi ci tànkam duggaat ci beneen néeg néeg boobee mu dugg ñu wax ne Cheikh Ibra Fall la ko fa takkuloo woon néeg ba wax nañu ay bagage sax néew fa woon asangu romb bu jaan la fa sëñ bi tegoon boo xam da ko fa wéeroon léeg-léeg bu amee soxla dugg fa ci biir def fa mu fay def génnaat mag ñi wax nañ sax ni moom suñu borom daf ko waxoon ni ko saa yoo dematee ba sonn da dem ci liggéey bu Ibra Fall liggéey nga nopp loo fa néeg boobu Cheikh Ibrahima fa liggéey te fan yooyu itam foofu ci kees googu woo yónnee na ci Cheikh Ibrahima ne ko nooy ablaal ablaay xaar mu daggal ko bunt foofu te bunt ba nañ ko tëj bu fa kenn jaar bunt boobee fa tabaarakallaa biñ koy indi Touba foofu lañ ko jaarale te jëmmam jëy niru jëmmi doomu aadama mu dal di tëddee njaaxaan fab ngegandaay coogu yi geganoo ko jël kaamiru alxuraan teg ca dënd bi jël waka wasala lil aqu min al aqil mubin muy axiru munaajaat bi teg ci moo tax sëriñ moom Mamadou Moustapha bi mbir mi xewee sëriñ Basiiru la daldi woo mu ñëw sëñ moo doo dugg fab caabi yi bi mu duggee bañ demee ba dugal di ko dugal ca wata ba dégg nañ bismillahi rahmaani rahim bi ñu bi ñu demee Touba ba ba teg ko fa barab bee biñ koy génne dégg nañ bismillahi rahmaani rahim dégg nga loolu ki ma ko wax ku wóor la dégg nga sëriñ Modou Moustapha nag daal dina sëñ ba doxal sëñ Modou nag door a def yitteem ci yabal sëriñ bi ñu indi ko ci barab bi mu gënoon a bëgg tey muy Touba loolu nag mi nga amoon ci fukki fan ak juróom-ñeent talaata fukki fan la woon ak juróom-ñeent ci weeru tamxarit la waaye di guddik ñaar fukkeel ga ca la sëriñ bi fanaan si doonoon itam fukki fan ak juróom ñeent ci mois de juillet ci 1927 guddi goog yi nag nga xamante ni ni sëriñ bi jóge na ko njaareem ñëw Touba loolu la dénkoon sëñ Moussa ni ko naa dem Touba te bu xat damm melokaan woow yi mu ñëwee tuubaay itam moom la doon ñaan boroomam ni ko wal taj alil mawta raahatan wa mafrahatan na def faatu mu doon ab nooflaay na ko def itam mu doon mbégte min kulli charrin ci bépp ay wa karbin mooy ak njaaxum daaxa ak xat-xat daaxa yàlla loola da nga ci gis ni sëriñ bi fanweeri at ak nangam mu nekk ci loxoy noonam nga xam ni ñoo koy saa yu leen neexee ñoo koy def lu gën bon njabootam di ko gis te mënuñu ci dara mu di leen naqari keroog ba loola jeexee wax dëgg yàlla bis booba du bisub naqar bisub mbégte la bisub tiis la nag ndax nam jeexe waaye du bisub naqar moo tax bi ñenn di wax màggal gi ni bisub naqar la sëñ Moussa ni leen du ca sëñ Touba de sëñ Touba moom du ci naqar ci aw moom ndax bis boobee rek taxoon muy kër kër di liggéey te boo demee ci mbindam ci mawaahibu rahman ma ngay wax suñu borom ni ko na nga def bis bi gën ci samay bis muy bis bi may dajeeg yow allahuma inni asaluka an tajala xayra ayaami yowma alqaak bi gën ci samay bis muy bis boobu yi nga xamante ni ci lay daje ak yow Cheikh Moustapha nag ku ne xam ne ne ku doon boole la ndax ni mu def ba dajale njabootu sëriñ bi Cheikhul Xadim radiyallahu anhu bu làqoo bëti nit ñi ñëpp danañ jaaxle ñëpp danañ gëlëm kenn dutu xam nooy def kenn dutu xam foo jëm kon nag moom mi nga xam ne moo dajalewaat yoon bi lépp loo xam ne digle na ko loolu ndigalul yoon bi nun murit yëpp ñun ci loolu lañu war a tënku te xam ne loolu mooy bi ci noonu te itam sunu njariñ rek moo ca ne ni mu ko waxee woon itam nga xam ne ni sëriñ bi waxee rek bi wax gàmm taadimuhu bi sunnati yaquduna lil jannati bi hisdiyaadul minati li muxlisin muadimi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 sëñ bi demul vingt 1927 rek ñu woote màggal gi sëñ Makhtar Diop Kaolack wax na ni sëñ Moussa Karim mi ngi njëkk a joxe ndigalul màggal gi at mi sëñ Baara ñëwee ci kàdd gi ba ci déwén set sëñ Baara 36 la kon 1937 la ko sëñ Moussa njëkk a waxtaane ak mbooloo mi ko fi sëñ Touba bàyyi loolu itam nii la demee sëñ Makhtar Diop kawlax nee na booba ñoom ay dongay sëñ Moussa lañ ay dongay tarbiya sëñ Moussa indi leen Touba. ñu war a yeeslaat ay néeg ci kërug bayti gii ñu nekk di fi muy gaaw bisu fukki fan ak juróom ci tamxarit sëñ Moussa woo ko ne ko masamba. Diop demal wol ma sëriñ ma Sàmba nee mu dem këram di ko seet fekk ko fa mu ne ko toppal ma ko ci réew mi fekk nga ne ko daa koo soxla nee mu wër ma ñaari fan fekk lu ko waxtu timis mu julli ba def ay lawraam àggal mu àgg suuf nuyu ko ne ko sëñ Moussa moo soxla Touba nga wuy ko nee na booba oto yombut nee na mu war watiir ba sëñ Maxtaar Jóob nee ma topp cay dox nee na bi ñuy agsi Touba booba xaw naa guddi nee na sëñ Masamba àggul këram wen gi woon fii ci buntu kër sëñ Mbàkke Mohamed gi nee na foofu la fanaan ci wetu jumaa ji sëñ Maxtaar Jóob ma ñëw ci këru bayti gii moom it nee na néeg bi sëñ Moussa fanaan fii ci bayti nee na ma sukk buntu néeg nee na bi sëñ Moussa yëngoo ci yoor-yoor bi xool buntu jumaa ji mu ne ko Maxtaar Jóob ñële ca wetu jumaa ja ñu mu nee na ma ne ko sëñ Masamba ñëw bi fekk nga fatu àggul këram mu fanaan foofu mu ne ko demal woon ma ko nee mu daal di génne kayit bi sëñ Tuubaa bindoon Seex Mustafaa génne ko ci poosam jox ko sëñ Masamba sëñ Masamba jàng ko mu àgg ne ab diir sëñ Mustafaa ne ko xanaa xam nga woote bi de mu ko am ah, mbag sëñ Moodu ne ko kayit wi de ko sëñ Tuubaa bindee ba mu yow la woowoon wooma ñu dikk toog fi mu jox la ko nga jàng ko jox ko ko mu jox ma ko ma jàng ko mu àgg ko ko mu ne Mamadu Mustafaa denc ko waxtu wa jot waxtu wa de xanaa agsi nee na ma ne ko am ah, mbàkke nee na mu ne ko xanaa ci at mii la ma waxoon señ Massa mu ne ko waaw mu ne ko ci weer wi mu ne ko waaw waaw mu ne ko asirina muharram da xana kon ngoon señ sëñ tan ñu kéro la laa njëkk muharram mu ne ko mu ne ko doxal jitu ma ci juma ci juma ja bay bay ma ma ngi bis nak la señ Moussa waxon ni jibona ak sa borom ci képp ku fi fanan sun borom jéggal la say bàkkaar lu tax mooy ña and ak señ bi ba ñi ñew waxto bis ba dul seete danañ fi ñew and fi ak mom fanan fi ak mom te buñ demee ci xasida ak yaa rabbana ilayka asku xaali bil mustafa wa xamsata rijaali asayqi al xaws xaadiri al jilaani haa'isi al ulumi wal irfaani suma abi yasid al bastaami aarifi al mubajjali al humaami suma tayfura ibnu isa al aali suma abi xaamid al qazali qaamisuhum maarufu al karqi jihbisi al muqaddami al wali yaa rabbana yaa rabbana stajib lana boo demee ca biir waaye mi ngi wax ne ihdirhumu inda mamaati yaqada na leen teewal soo sama roogi di tàggale kook sama yàpp yaram nañ ko fekk rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ak juróomi góor yàlla yooyu gisaat na it faax nañ fi mu wax inna allazina sahidu fi lmaaraka mujahidina kullu abin musrikin liya nawalun kulluhum yaxbitu ni wa kullun saairun li watani nee na mbooleem ñi nga xamante ni dañoo dee ci jihaad moo xam ci jamono yant bi sallallahu alayhi wa sallam wala baneen xeex bu ñu wooteel lislaam gannaawam nee na ñoo ñëpp de bii ma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 ca koo xam ne réesoo nga fa ak malaaka ba dëgg nga fa tànku malaaka ba leneen ah desitu la bindal bàkkaar mooy tax guddi googu ku man na nga ca dem mooy mooy guddi mooy guddi màggalug isirina muharam gii dégg nga waaye isirina muharam googu képp koo xam ne dem nga ca ba fajar jot wax nañ ne sax soo ca mënta dem jaaralu yoon doxa dox ba ñaq rek wàññiku waaye malaaka yi sun borom rek a ko xam moom mi leen bind laa yaxlamu adadum illallah malaaka kenn xamul lu mu toll ndax bu ñu wàccoon def malaaka yi gën a néew féetee ak dund mi nga xam ñoo ci gën a néew bu ñu wàccoon ci suuf si di far par benn benn fepp suuf suuf dana jeex ca duñu xaaj sun borom rek a leen xam guddi googu nag lammiñu sëñ Modou Mbéri laa nangoo mu ne ñu xisee julli gee malaaka yi dañuy jëlante service di yéeg di weesaloo ba ba fajar jot buñ xisee nodd fajar nag ñu ñu dem kon nag ku ko mën nga dem ci Cheikh Moussa génne kay ba sëñ Tuubaa bindoon tàllal ko ci ñeenti xibla yi daal di wax ne ne ko Ibrahima Sare nuyul ma bindee fi su ngeen gisee ma woote woote bii borom Touba moo bindoon kayit wii woowoon bàyyi ma sàmm woo ma jox ma ko seerloon ko ko moo tax ma woolu ko mu ñëw te lu waaye di seer da ko war a fekk moo tax ma woolu ko mu ñëw ndaw li Louga la ko fekk donc Ibrahima Sare neel bindee fi borom tubaab moo ne moom saa bu bis bii jage seetee saa bu jamono bi tolloo fii na nga ma dajaleel sama mbooloo wax leen ni su bis bii jage seetee fu waay nekk ci àddina na ñëw fanaan si Touba soxla su jar bañ a fanaan si Touba yàlla defu ci benn soxla ci guddi kon la nga ciy njëkk a dégg kon mooy ndekete kon keroog bi ñu joxe ndigal li sëñ Touba moo waxoon sëñ Moussa ne ko bu jamono bi tolloo fi ba nga war a joxe ndigalul màggal gii na nga ma dajaleel sa mbooloo moo tax Cheikh Moussa ne ko borom Touba moo ne man saa bu jamono bi tolloo na nga ma dajaleel sa mbooloo wax leen su bis bii jage seetee fu waay nekk ci àddina na ñëw fanaan si Touba soxla su jar bañ a fanaan si Touba yalla defu ko ci benn soxla ci guddi googu ji muy guddi màggal googu ñu jëm Ibrahima Sall neel bindee fi borom Touba moom saa bis bii dikkee rasulu rabbul alamina ak ahlu badrin ak malaakatal muxarrabiina yëpp fii la ñu bokk fanaan fi Touba kuñ fi bokkal fanaan set nga wecc si bàkkaar Ibrahima Sare neel bindee fi kuy ñëw na dugg ci saxaar gi te tontu ko Ibrahima Sare mu ne ko Mbàkke mu ko képp kuy ñëw te romb ko bëggoon a màggal si te amul paas la nga defoon ci sa poos muy addi joo waroon a ziyaare man mënu soo jox ko jëmm ja nga romb mu màggal see ko soxlawuñu alal yi ci guddi googu roo yi la ñu lii mooy message bi sëñ Moussa njëkk jàllale ci màggal gi di ndigalul sëñ Touba kon màggal gi ndigalul sëñ Touba la. ndax gan yi sëñ yooyu ñëw dama bëgg bu ñëwee fekk dëkk bi set daañu képp ku fi buub lu tolloog tàggu parantaan te jublu ci eh, sargal sëriñ bi ak setal ngir ganam ñooñi nga xam ne ak jaamu yàlla la ci ñun. sëñ Mourou ni ku ca setal lu tolloog tàggu ci parantaan suñu borom jéggal la say bàkkaar. yooyu yëpp dafay wane rek sëriñ bi manoore bi mu am ci diggam ak boroomam léppam la yàlla barkeel ba loo yëngatu ci moom rek suñu borom barkeel loola defal la ci lu lu kawe sa njort moo tax itam mu waxoon ni guddi goog yi bu jotatee fépp fu waay nekk na fanaan si Tuuba ku yor yaari mbubb na la jaral jaay mel ni ma te ñëw ku yor loo ma war a jox te am taalibe boo dendal te mënta ñëw jox ko ngeen and ñew li ngeen tonto saxar gi mok li ngeen ma jox ma def ci sa poste ñoyam soxlawuma alal ji roy la bëgg ñu fanaan sa gi seigne Moussa mu jama galit de dëkkaale ji ak atum 1944 gu ñëk kooku nag 1937 law Cheikh Moussa na 45 la nelaw waye magalu 45 ga fekku fa ndax ci baraxlu wala dem magal googa nak dafa am comité bu seigne Cheikh Gaynde Fatma coordonné won bindu ko waxtaan ci ak waajuram seigne Moussa Al Karim muy daayira diwaan bi ne woon fii lëkkale bunti kër yi sëriñ Touba yëpp sëñ Cheikh nag waxtaan ak sëñ Moussa wan ko ko ne ko buñ mënoon a màggalee màggal gi nii bu fekkee jugul na waxtaan ceeg njabootu sëñ Touba yëpp say rakk ak ñëpp dana am solo sëñ Moussa xool ko mooy lu rafet ndax sëñ Cheikh yàlla da koo dimbale woon mu daal di woo rakkam yëpp waxtaan ci ak ñoom ñu rafetlu ko ñu doxale noonu màggal gi ba sëñ Moussa waxoon ne màggal gi bu ma fekkatee ma ko màggal noonu daa koy bàyyi saytaan bëgg cee profité ne nee na màggal gi bu ko fekkee waatee du ko màggal da koy bàyyi déedéet ndax noonu ko màggalee daa rafet te lii dana ko leeral loola nag mi ngi sëñ Cheikh mi ngi ko tuddee woon chronique attributive des autorités devant organiser le pèlerinage de Touba lii nag pàgguteef gu rëy gu mag ku doy waar ku màgg muy Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké Gaynde ma moo ko bindoon atum 1943 mu mel ne kon day laaj xereñteef tuuti ak analyse ndax ni ko sëriñ Cheikh tudde ci xalim ak sëriñ bay di Ba mi ko bind nettali ko loolu mooy toftale kilifa yi nga xam ne ñoo war a saytu bis bu mag bii di yoonu murid maanaam muy li nga xam ne moo gën a màgg te gën a mag ci yoonu murid wi xam ne mooy tax nit ñi di jóg di fa dem pèlerinage nag day firi aj donte nag duñ ko tudde noonu ñu ndax aj moom màkka lañ ci xam muy màggal Daaru Xudoos gi waaye di bisub sëñ Touba nag kon nañ xam ne sëñ Touba ko moom. ñu fàttali ko ci itam ni bisub penc dana ñëw ndax li nu fi dajale te nu fi dajale mën naa dajalewaat beneen daja bu gën a rëy boobu ngir nu bàyyante xel ci seen biir mu fàttali leen itam soññey sëñ Touba yi muy ndigal yi nga xamante ni moom la fi sëñ bi bàyyi woon te mooy bëgg nit ñi sax ci jàng ak jàngale ak jaamu yàlla ak liggéey ak yar loolu daf leen ko fàttali fàttali leen itam liggéey yi nga xamante ne daf ko simbal sëriñ bi lu mel ni booba jumaa ji mooy taxaw mag ñi ngeen ndax communication demewul woon ni mu demee tey loolu itam moo continuer rek ba waxtu wu ci nekk ku fi nekkal di woote bis bi di ko ànd ñuy sant bu baax a baax ci kilifa gii fi nekkal sëñ Tuubaa di Cheikh mun Mountakha nga xam ne bi màggal gi jëbsee dafa wax ni day dem njaareem bu demee njaareem mu gën a jege ne sëriñ bi defoon mu rajaane fa ñëw ànd ak nun màggal gi fanaane ko màggal ba fajar mu dem ci sëñ bi dénkaan ko njaboot gi xamal ne ko taalibe yaa ngi nii rek maa ngi nii ak ñoom te sunu bëgg mooy sëriñ bi rek moom lañ bëgg moom lañ daw jëm loolu itam di lu am solo ko defee noo ngi gàttañ lu foofu rek di wàcc sunu kàddu ak noonu sunu borom defal tawféex ak taysiir بركة الشيخ القديم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته